إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله mbokk yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom seede na moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu ñaan ko mu julli ci suñu yenente ba sallallahu alayhi wa sallam bi mu yónni woon ngir mu jàngal nañu nuñ koy jaamu suñ xutba tey bi moo jëm ci fàttaliku suñu gél génn wàllu diine ngalawaay xam leen ni diine jii de ñaari pàcc la ko yàlla xaaj benn pàcc ba mooy sant gañ koy sant beneen pàcc ba mooy muñ ga ñuy muñ diine lislaam suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam dani aka yéemi la nga xam ne mooy mbiru jullit nee na mbiram yépp rek yiw la xéewal ya ko yàlla di xéewal ca la jiitu ci xéewal yooyu muy diine ji mu la tànnal boole la ca ak lu cay topp ci xéewalu àdduna mu ne loolu lépp da cay sant yàlla mu wëlbatiku nekkaat xéewal ci kaw xéewal waaye nattu yi ko yàlla teg da koy muñ muñ gu rafet mu wëlbatiku nekkaat xéewal gu tege ca kaw nattu ya sant xéewalu yàlla farata la suñu borom yàlla subhanahu wa taala bim ñu limalee xéewal gi gën a màgg gim ñu defal kama arsalna fiikum rasulan minkum xéewal gi gën a rëy gi yàlla mocc masa wàcce ci kaw suuf du ndox mi du oxygène bi du lekk gi du doom yi waaye xéewal gi gën a rëy mooy diine ji nga xam ne da koo wàcce diine ga ca gënoon a mat mooy bi mu tegoon ci loxo yenentam ba sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nag mu ne ni ma wàccee ci yéen ab yonent mu leen di jàngal samay aaya di leen sellal di leen xamal lu ngeen xamuloon ba seen àdduna ñoŋ seen allaaxira ñoŋ ngalawaay dee leen ma fàttaliku fu ngeen mën a toll ngalawaay dee leen ma sant fu ngeen mën a toll ca bu leen weddi benn ca la nga xam ne mooy samay xéewal washkuru lii wala takfuruun sant xéewalu yàlla mi ngi noonu nekk loo xamee ne nii wareef la yàlla tagge ca yonentam yi jiitu woon bokk na ca suñu maam ñun ñépp mooy nuux alayhi salaam suñu borom mu ne eey yéen ñi cosaanoo ci nuux seen maam nuux day kaana abdan shakura moom day dafa saxoon di sant borom bi jalla waala ibrahima mi ñu yàlla toppaloo toppaloo ko suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla mu ne nekkoon na ku toroxlu woon ñeel yàlla jàngoon bépp shirk waaye shakiran li an umi ku daan sant mboole mi xéewalu yàlla ci moom la looloo tax ba njëlbeen yow julit gëmal ca saxal ci ne kat sant xéewalu yàlla yi loolu farata la boo xam ni julit mënu koo ñàkk a def ñaareel bi mbokk jullit mooy naka lañuy sante sant boobee dafay aju ci ñetti mbir mbir bu jëkk bi mooy sa xol bi moo war a jëkk cant ga moo ab xol nu muy sant yàlla mooy xol boobee yëg ne mboole mi xéewal yoo xam ne daa nekk ci man wala mboole mi xéewal bu nekk ci keneen ci yàlla jalla wa ala rek la jóge ah waaw kii nga dajal mu jox la 1000 francs nag mbokk kooku benn wasila la benn moyen la bu ko yàlla jaare la ca moom waaye suñu borom mu ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah bépp xéewal bu ngeen am xam leen ne ca yàlla la jóge moo koy jaare la nag ci ku ko soob ci ay jaamam léeg-léeg nit dajeeg nit koo xam ne musu koo gis xamu ko mu jox ko teraanga dem keroog la koy mujj gis loolee kon yàlla moo koy defal ay jaamam gannaaw loolu mbokk jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci lu mu jàngale woon mooy nit ki bu xëyee di wax naan ay yàlla maa ngi nangu ne xéewal yi ne ci man ak yi nekk ci keneen yépp ci yow dong la jóge gannaaw loolu mbokk làmmiñ bi jël wallam suñu borom yàlla mu ne fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis julit dafa war a feeñal ak sant ci làmmiñam ba ñépp xam ne moom mi ngi sant yàlla falilahi alhamd yàlla day wërsëgaloon nañu ñun sénégalais suñuy maam koo ci masan dajel mu diw na nga def mu ne ah alhamdulillah alhamdulillah ba baa gaa yi soppee ko sant sëñ diw na nga def jërëjëfe sëñ diw maa ngi sant sëñ diw mbokk loolu weddi xiiwalu yàlla la jalla wa ala suñu borom yàlla lépp lu nekk ci yow moo ko def sëñ diw moomee nga wax lépp lu nekk ci moom yàlla ko def kon nga la waay dellool cant gi ka moom cant ga kenn dong moom moom cant yépp muy suñu borom jalla wa ala moo tax borom bi ne ak néew ci sama jaam yi ñoo xam ne ñoo may sant ay yow mbokk julit yonent bi alayhi salaam bokkoon na ci ay ñaanam mooy daana wax ay yàlla laa uxsi sanaan alayka anta kama asnayta ala nafsi ay sama borom yàlla xam naa ne lu ma la tagg-tagg lu ma la gërëm-gërëm mënuma laa gërëm-gërëm gu dab gërëm gi nga gërëm sa bopp ca loolu laa chàkk mbokk julit bu doon fi la yàlla binde ba bàyyi fi ngay faatoo yaa ngi santoon di tagg yàlla di sant yàlla suñu borom mu ne in tauddu nicmatallahi la tuxsuha mënuñoo fexe ba peeg la nga xam ne muy xéewal yàlla yi xamuñu sax un dixième ci xéewal ya ñu yàlla subhanahu wa taala defal kon da nga cay def la nga man la ca def nga jéggulu ko sa borom jalla waala amma nag ne fa ñukk yàlla di sant keneen koo jàpp ne moo lay xéewal adduna ak alaxira loolee mbokk nekk na lu jéggi dayoo su ko defee ñetteelu mooy sant borom bi jalla waala mooy la yàlla santoon ala daawud mooy i'malu ala daawud shukra wa qalilu min ibadiy shakur mbokk ak sant dees koy jëf suñu borom yàlla mu ne jëf leen la nga xamee ne nii moom mooy cant gi loolu moo tax ba doom bi aadama bi heure boo xamee ne nii yàlla jox na ko xéewal dafa war a xam ne xéewal gii ci yàlla la jóge lan moo tax yàlla jox ko ko mooy ngiree nga sant ci yàlla naka lañ ci sant yàlla mooy nga delloo ko fa neex yàlla wolof njaay yi nay wax ni ku ñu aba ku ku ku ñu abal ku la abal ay bët nga xool fa ka neex waa ji nga xam ne yow doo gis mu ñëw abal la ay bëtam da nga xool fa ka neex naka noonu itamit borom bi sal jalla wa ala mboolem lu nekk ci ñun moo ñu ko jox bam ñu koy jox dañ koo war a delloo fa ko neex ci loolu dong lañ koy sante loolu tax ma yow julit mi yàlla may xam-xam xam-xam boobee jëfe ca la neex yàlla ca la yàlla xamal ñu war ko caa jëfee koo ca mën a laayi biir laayi ko ca biir alal ji yàlla teg ci sa loxo sante ca yàlla naka laay sante yàlla fexeel ba benn dërëm bu mu dem ci fu xaram fexeel ba foo gis ne lii ngërëmal yàlla nga fa nga def ko ko nga def ko ca te xam ne yàlla joxulu ko woon pour nga koy denc ak annoncé yàlla dala koo joxoon pour nga sant ko ci sant ga mooy fépp foo gis ne lii kat bunt bi xéewulu yàllaa nga fa alal ji yàllaa ko moom yàlla la moom nga jël alal joojee delloo ko fa neex yàlla njaboot gi la yàlla may am na ay millionnaire intellectuel wër àdduna fu ne dugg nañ fa bëgg am doom mënuñoo am doom xéewal gi la yàlla may ci doom ngir lan la ngiree nga sant ci yàlla naka laa ci sant yàlla njaboot googu xamal leen seen diine teete leen teg leen ci yoonu yàlla loolee mooy la la yàlla sant ci ñoom amoo neneen noo mën a sant yàlla lu dul loolu njaboot gi amuñu nu ñu mën a sant yàlla lu dul xamal leen kuy seen boroom teete leen gunge leen bañ jaamu yàlla jalla wa ala loolu la ñuy wax ci lépp ngallaawaay bokk na ci mbokk julit natt bu rëy bii ñu yàlla nattoo ñu portable yi nga xam ne mooy xarit bi ñu gën a jege mu ñu gën a jege suñu jëkkër gën nañu jege suñuy soxna gën ñoo jege suñuy àndandoo yépp àndandoo bii mbokk xiiwal la boo xam ne suñu borom moo la ko wërsëgal pour lan mooy nga sant ci yàlla naka laa ci sant yàlla portable bi du ma ko tiim mukk di ci seetaan wala di ci jëfandikoo loo xamee ne nii wóor na ma ne lii neexul sama borom jalla wa ala lii mbokku lañ lay wax ci mboolem lu la yàlla wërsëgal la ca gën a màgg ci loolu lépp mooy cër yi nga xam ne mi nga ànd ak yow suñu borom yàlla mu ne wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a wa jaala lakum alsama wal absara wal afida laallakum tashkurun ay yéen doomu aadama yi maa leen génne seen biiru yaay yi xamu leen dara suñu borom yàlla nee na ma may leen dégg may leen ngeen di gis may leen am xel ngiree ngeen sant yàlla nu ñuy sant yàlla ci dégg gi ngal la waaye demal jàngi diine yàlla ci ca jëfe ca sa kemtalal kattan bul déglu lu neexul yàlla del suturaal lépp loo dégg ci ab julit del wax lu baax la nga dégg ci ay julit te xam ne nopp yooyee la yàlla may des millions ci doomu aadama yi ñi ngi nii yàlla xañ leen nopp nopp yooyee bët yi la yàlla may des millions yàlla xañ na leen ko xel mi des millions yàlla xañ na leen ko looloo tax ba mboolem say cër da ngay góorgóorlu fexe ba delloo ko ci sa borom jalla wa ala cay yëg loolu di ko sant foo mën a toll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkoor loon na ak Muaz ibnu Jabal ne ko ay Muaz maa ngi lay dénk foo julleeti ba pare na nga wax allahuma inni ala zikrika wa ala shukrika wa ala husni ibadatik ay yàlla maa ngi lay ñaan nga jàppale ma ci ma lay fàttaliku yàlla maa ngi lay ñaan nga jàppale ma ci ma lay sant maa ngi lay ñaan nga jàppale ma ma jàpp ma lay jaamu jaamu gu sell ngal la way wattu leen loolu góor ak jigéen allahuma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika yàlla yàlla nag ma dimbali ba ma lay fàttaliku dimbali ma ba ma lay sant dimbali ma ba ma jaamu la jaamu gu sell yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam daana waxit ne képp koo xam ne xëy na ci yéen mu ne ay yàlla allahuma ma asbaha bi min ni'matin fa minka wahdaka la sharika lak fa laka alhamdu wa laka shukru képp koo xam ne daa xëy mu ne ay yàlla bépp xéewal bu nekk ci man day xam naa ne ci yow dong la jóge yàlla maa ngi la cay sant maa ngi la cay gërëm loolee képp ku xëy wax ko ah delloo na yàlla cant bis keroog képp ku gont wax ko delloo na yàlla cant ngoonu keroog loolu moo tax ba mbokk julit nañu góorgóorlu wat xool naka la ñuy def ba bokk ci ñuy sant suñu borom jalla waala la nga xam ne nii moom moo ca jiitu bu ñu fàtte mu ko ay ñaan comme noonu ma leen ko waxe foo toll di ñaan yàlla boole la ci jaam yi ko sant jaam yi nga xam ne dañuy sant seen borom góor góorlul ci xam ne sant yàlla gi gën a màgg mooy taxaw ci ay farataam gannaaw ba góor góorlu ci ay naafilaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan taxaw guddi di naafila ba tànkam ya néewi boole koog di jooy ba dënnam bi di riir suñ ko masaan laaj lu tax lii yàlla baal na la sa mbooli mi bakkaar lan la daan tontu afala akuna abdan shakura ndax duma doon jaam buy sant sama borom kon njëlbeenu sant yàlla mooy waxtu julli jot na xoolal laab gënam gën a rafete nga defe ko noonu xoolal toroxlu gënam gën a rafete nga defe ko noonu ngalawaay bu dee góor a solal sa dal dem ca jàkka ja lii mooy la nga xamee ni nii moom ngay sante sa borom cër yii la yàlla may xoolal lépp lu ci yàlla xaraamal téye leen ma bët yi ci xool lu xaraam téye nopp yi ci déglu lu xaraam téye loxo yi ci liggéey ci lu xaraam téye tànk yi ci jéego jëm fu xaraam góor góor lu lu ngeen mën a def ci lu baax ngal la waay ci cër yooyee ngeen def ko te bokk na lu lay dimbali ci sant yàlla mooy nga doyloo xiiwulu yàlla ki gën a riche ci kaw suuf mooy koo xam ne dafa doylu yonent bi alayhi salaam dañuy wax xool leen jaami yàlla yi ngeen tani bu leen xool ñi nga xam ne ñoo leen féete kaw li nga xam ne moo yàq diine tey li tax nit ñi santatuñu yàlla bu la yàlla wërsëgalee kër yaa ngi xool këru keneen oto bi oto keneen alal ji alalu keneen doomu aadama yi xoolatuñu la leen yàlla defal ku nekk yaa ngi xool ka nga xam ne moo di tiim looloo tax jàmbat bi ëpp sant gi da ngay gis koo xam ne yàlla xëpp na ko lu nekk waaye ma nga jàmbat guddeeg ba ceeb lu tax mooy ma ngay xool ñoo xam ne ni ñoo ko ëppale déedéen mbokk julit saxal di xool ñi nga tani noonu ngay mën a góorgóorloo ba bokk ci ñi nga xamee ne ni dañuy sant yàlla jalla wa ala waaye nga naaw ba it bokk julit xamal ne xéewal yii la yàlla subhanahu wa taala jox bokk na ci loo xamee ne nii dana tax mu doy la sëkk mooy nga bàyyi xel xam ne lii kat yàlla daf ma ko jox ngir lan ngiree man ma daal di ci jaamu sama borom kon lu mu néew néew sant ci yàlla te borom bi yàlla day moo ñu dig la in shakaratum la azidannakum tànk li la yàlla wërsëgal ci xéewal xool nga ne ah lii day du lu ma méritoo mbaaxug yàlla la bu mu jëme ci man nga nangu loolu sant yàlla ci loolu suñu borom nee na fi yéeg yéen a ngi may sant danaa leen dolli waaye fi yéeg yéen a ngi may weddi samay mbugal lu tar ci yéen lay doon mbokk yàlla lam ñuy dolli kenn mënu koo peek kenn mënu koo peek firiwul ne ni nii da ngaa joxe 1000 francs yàlla joxe la 1000 francs déedéet yàlla mën na laa dollee may la njaboot gu barkeel yàlla mën na laa dolli yëkkati say daraja fi dunya wal axira looloo tax ba julit day gëm li ma am néew naa ko bari man day bokk naa ci ñi yàlla baaxi daal di góorgóorlu kéemtalaal kattan foo toll di sant foo toll di yëg na yow borom xiiwal yu màgg nga xamal ne yaa nekk ki gën a riche ci doomu aadama yi lañ cay mujje mbokk julit mooy xéewal yooyee xamal ne lu mu néew néew lu mu bari bari yàlla mu ne danaa la ko laaj yowmal qiyaama summa la tusaluna yowma isin ani naim lii la yàlla may ci dund vingt ans la quarante ans la sa ndaw gi jeunesse bi yàlla dana la ko laaj xam-xam bi alal ji fu mu jógee foo ko dugal mboolem lu la yàlla masa jox yonent bi alayhi salaam mu ne ndox mu sedd mi ngay naan sax yàlla subhanahu wa taala dana la ko laaj loolu moo tax ba doomu aadama balaa ittewoo naan man uuma ak ñàkk naa la muy jëkk ittewoo mooy li ko yàlla jot a jox ana ban warugar ndax taxaw na ci ndax delloo na ko ca fa nga xam ne moo neex borom bi jàll wa ala lii mbokk kon benn tënk la boo xam ne tënk bu ndaw la boo xam ne dañ koo war a dañ ko war a bàyyi xel di ko nafar fu ñu mën a toll gannaaw ba nag ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu suñu effort yu néew yooyu ñu def jëm di ko sant ndax yàlla kenn mënu koo sant waaye nag la nga xamee ne nii néew na néew nga man ko soo ko defee la ca des yàlla subhanahu wa taala mottalil la ko mbokk ñu ngi jeexal suñu xutba bi di yëgal jigéen ñi nga xam ne jotuñoo yëg ajjuma ji paase yéen nga toog ci sàppe si ak soxna Acca Ndongo mu ñëw fii ajjuma paase ñoo bokk toog nii ci jumaa ji yàlla dogal na barki bii barki démb la faatu ñu delloo ko boroomam jalla wa ala su ko defee loolu itamit nekk benn mbir boo xam ni ñun ñëpp ñu góorgóorlu ñaanal ko ci yàlla yéen jigéen ñi it ngeen bàyyi xel ca muy diine ji góor ak jigéen ñoo ko bokk ndax ñi fekk woon tafsir bi bokkoon na lu ñu leen ko wax waaye jar na it ñu nettali leen ko moom daara jàkk 24 moo yoroon daara ja di jàngale foofu alquran bis bi muy gaañu muy àllarba ji ma gaañu barki démb ngoon gi dem na jàngale ji alquran ay taalibaam guddi gi mu ñëw fanaan ca morgo ba faatu ba ko xoolal loolu diggante bi muy jàngale ay taalibeem di at quelques heures la ci toog faatu ñu indiwaat ko ci morgo bi loolu muy wone ne ñun na doon yow da ngaa nekk góor wala da ngaa nekk jigéen mbokk àdduna yàlla dañu fee indi ñu war fee jaar rek di jàlle di dem ku nekk ci ñun na xool lan lay defal sama diine lan lay taxawee sama digganteeg sama borom ca xam ne dee gi mën na laa fekk fu nekk ñi ngi ci dolli koo xam ne moo yoroon ñaari école yi école arabe yi monsieur Diop moo yoroon école arabe bi di leen di leen école primaire bi di fa jàngale arabe moom it barki dem bi même chose génn na këram di dox daanu ci mbedd mi faatu fii la daan julleeg ñun tisbaar waxtu yu nekk yal na yàlla jéggal leen yërëm leen yal na yàlla saxal ñu ci ngërëmam yal na yàlla mottali ay xéewalam ci ñun yal na yàlla boole ñu ca ña koy sant yal na yàlla rafetal suñu sant suñu digganteeg moom rafetal suñu jaamu yàlla suñu digganteeg moom te boole ñu ñu koy fàttaliku guddi ak bëccëg yal na yàlla rafetal suñu daje ak moom defal ñu àjjanay firdaw suñu suñu wàccuwaay allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين